faslun ab dog la fi shuruti salaati ci sarti julli sarti julli bokkutub faratay julli ndax buñ ne nangam ponk la ci lii mbaa farata la ci mooy day doon ca dëgg-dëgg loola nga xam ne day dugg ca biir saalub loola buñ ne nag nangam sart la ci nangam mooy du dugg ca dëgg-dëgg loola day génn ca bitti du bokk ca biir loola bu ñu nee sart mooy loo xam ne du dugg ca dëgg-dëgg loola day génn ca dëgg-dëgg loola mën nga koo xamle ci wax ne buñ ne nangam sart la ci nangam bu amul rek loola du am bu ñu wax ne nag bu xasee am rek faaw loola am mbaa loola ñàkk waaye nag dañuy dogu ci ne moom su amut rek lañ doon sart itam amut bu ñu nee nangam mooy sartub nangam war mel na ñu ne kàllafe mooy tax julli war kon mën nañoo dogu ci ne ku kàllafewut rek julli waru ko waaye nag mënees naa kàllafe ba noppi te julli du la war ndax da nga am gànt lu ko teggi mel ni mu kàllafe ba noppi di jigéen gis baax te fekk it ku amee leneen luy tax loola war loola am niki buñ ne waxtu wa jot kat mooy tax jullee war kon gannaaw ba mu kàllafe ba noppi waxtu wa jot amut da koy daldi war buñ ne nangam day sart la ci wérug nangam mooy rek da ngay dogu ne sart boobee bu amut loolee du wér mel na ñu ne dugg ci lislaam mooy tax bu jëmm ji jullee ak julleem wér nga xam ne dugg ci lislaam su amul moom mënees ta jar fenn ba julli ga wér waaye nag dugg ci lislaam mën naa am ba noppi te du tax julli ga wér ndax mën naa dugg ci lislaam am lu koy aaye julli mel na gis baax mën naa dugg ci lislaam julli leneen ñàkk ca loo wax mëntoon ñàkk moom itam niki laab ba tax julli ga ñàkk wér buñ ne nangam day sart la ci nangam door a war sart la it ci nangam door a wér nga xam ne kon sart wa jóobin wa sixatin ma an la mel ne xel ànd ak sago mooy tax jullee war te mooy tax buñ jullee julli ga wér lu mel noonu mooy loo xam ne su ko see ñàkk day yaa yi nga waxoon yépp muy war ga ak wér ga yépp daal di ñàkk waaye nag ak amoon rek nag taxut yaar yooyee daal di am mbaa yaar yooyee daal di ñàkk sart yi nga xam ne mooy tax jullee war képp yam ca nga xam ne doonu sart ca wér ga sart la ci war ga dong moom ñaar la kàllafe ak ca dañ koo forcé ne ko doo julli gone julli waru ko ku ñu forcé ne la doo julli ba jullee mu rey la itam diiru forcé gaa nga demee noonee julli ga du ko war waaye nag am nañu ne li gën a wóor mooy forcé gi moom tutee julli war ko ndegam fekk na mu amee laab ndax bu xasee amuk laab buñ ko forcé ne ko doo julli itam mën naa bañ a def yëngutuy cër yi te fas yéene ci xolam dawal nag julli gi fa mu tàmbalee ba fa mu yem ci am xelam te loola kon mooy la man ci julli def na ko ka julli war faw day kàllafe bu dee gone rek julli waru ko te mu jekku itam laabug xadas maanaam mën a am laabug sangu farata mbaa jàpp mbaa tiim bu dee koo xam ne mënut yooyu ndax benn dañ koy defee muy ndox mbaa suuf amu ca lenn wala muy koo xam ne am na leen sax waaye daa toll ci tolluwaay boo xam ne yoona ko mayut mu mën a am yooyu laab mel na jigéen ju toll ci gis baax mbaa gis traité wasin kooku julli du ko war bu amoon it yéen ñuy laabee muy ndox mbaa suuf te mën leen a jëfandikoo ki dañ ko yeew ba tey kon julli du ko war bu saxee ci noonu itam ba waxtu wa jeex nañ ko waxee woon julli ga wàcc na ko du ko fay bala ko julli war fekk nekkul di nelaw te it fàttewut waaye su fekkee day nelaw mbaa mu fàtte ba ba mu yeewu julli waru ko bu yeewoo nag bu door koo war ci bu waxtu wa jàllee itam mu fay ko ndax loolu mooy ndigal la ndax hadis ba dane rufixal xalamu xan talaata anil majnuun almaxloobi xala xaqli xata yabra wa xani naaimi xata yastayqiz wa xani sabi xata yaxtalim dane yàlla du bindul kenn ci ñett ñi dara ku dof ànd ak sagoom ak kuy nelaw ba ba muy yeewu ak gone ba ba muy kalafe kay nelaw ak ka fàtte ñoo yemoo kenn ci ñoo ñaar mënta saxe ba laab laabu xadas bi wax kay nelaw mbaa ko fàtte amu ci ku ko mën a def moo tax gone moo xam góor la moo xam jigéen la bu duggee ci atum juróom ñaareelam nañu ko digal muy julli yooyu jamono su bañee itam jaruta dóor hadis ba dane muru awladakum bisalaati wa hum abnaau sab'i sinin wadribuhum xaleha li xashrin wa farriqu baynahum fil madaajih maanaam gone gi bu demee ba dugg ci atum fukkeelam dañ ko digal muy julli te bu bañee moom nañ ko dóor dóor yem yoo xam ne du dagg yaram wa du damm ab yax ci kaw sax ñu defee ne dóor gu am na njëriñ waaye bu ca dóor gu amul njëriñ mën nañoo bàyyi ndax julli waragu ko te lañ leen di tàggale bindee tëdd lañ ci jublu mooy ñu bañ leen a boole ñu tëdd def yarami neen ñu sàng leen rek benn yére seeni awari laalante waaye kenn ku ne bu solee mbubb rek mbaa mu yor càngaayu boppam ñu bokk benn lal wàññiwul dara daa dugg ci wax sàrt yi tax jullee wér moo ci njëkk a tudd mooy na koo ko ànd ak sagoom ab dof julli waru ko waaye bu julli woon tam du tax julli ga wér kuy xam itam bu jullee woon nañuy jullee waaye mën nga ci xamte la du tax julli ga wér lay tax julli ga wér mooy mu am yaar yi nga xam ne moom la ñuy wuute ak laab muy ndoxu suuf ba noppi itam mu mën leen a jëfandikoo am yaari laabukaay yooyu ba noppi mën leen a jëfandikoo sartub war la sartub wér la itam balaa julli ga baax jigéen ca bañ a amee baax maanaam li ñuy wax regal bañ a amee dereti wasin jigéen bu tolloo ci gis deret mënta saxe ba amuk laab julli waru ko te bu ko defee itam du wér ak yéefar julli war na ko waaye lay tax na julli gaa wér mooy mu dugg ci lislaam ak yéefar bu julli itam tax julli ga wér mu tegaat ci nag wat taxaarati xaddasin ak laabuk xaddas bam ne wax qudratin xalaa taxaarati xaddas mënoon nañ caayam mel na ne waaye mu leeral ne gannaaw ba mu amee yaari laabukaay ya te mën a jëfandikoo kenn ci yaari laabukaay ya tey jàll nag def laab googee ba amee laabu xadas julli ga door wér waaye su amul laabu xadas julli ga du wér lay tax julli ga baax mu amee laabu xabas maanaam bañ a julliwaale sobe ci kaw nañ ko teqale woon ci gannaaw nga xam ne ñàkk a julliwaale sobe moom wax ji gën a wóor ndegam mën naa tàggu sobe sa te fàttewu ko tàggoo moom rek mooy tax julli gaa wér bu tàggoo ak moom rek julliwaale sobe julli ga du wér su ngànt taxee nag mu julliwaale sobe wala fàtte waral ko kon julli ga baax na dañu sopp rek mu baa mu julli ga ca waxtu wa ndegam mën naa tàggook sobe sa te waxtu wa jeexut am na nag ñu wax ne ñàkk julliwaale sobe moom sunna rek la nga xam ne bu ko tayoon julliwaale sobe du tee julli ga wér kooku mooy laabu xabas laabu xadas mi nga weesu woon nag te mooy bu ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu bu amee ngànt tiim googu laab moom ci la ñëpp maase ne mënta ñàkk ba ñu waxoon ne sax su fekkee amut ndox amut leneen lu mën a tiime la dale ci waxtu wa ba waxtu wa jeex mbaa amul na leen waaye mën leen woon a jëfandikoo di kañ ko yeew mbaa beneen ngànt kon googu julli wàcc na ko dafa tudd ameel ak sangukaayu njëkk yi nga xamee ne day am béréb boo xam ne fa ngay toog yow bëgg a sangu muy nekk béréb bu tàng ba sa yaram nga jof ñu sang la sotti la ndox mu sedd nga fay daa xewoon ci yooyu jamono ñu koy wax alxammaam ba baytu xammaam ak santaare maanaam fu ñu daan tuur mbalit ak neefareeg yooyu ak digg aw yoon yoonu mën di doon ak béréb bu ñu daan rendee yëpp ñoo bokk àtte fu mu ca mën doon bu la wóoree ne sobe moom amu fa bu fekkee daana fa amit fi mu nekk moom amul sobe nattabli woo ko kon mën nga faa julli moog barab yëpp ñoo yemoo boo ko jortoon sax jort lu dëgër a dëgër ne amul dara ci sobe fu mu ci mën doon mën nga faa julli dara nekku ca mu des nag bu la wóoree ne sobe nekk na fa kon dana araam nga song di fa julli te julli ko faaw da nga koy baamu xam nga ne boo dee sikki sàkk na ndax sobe am na fa ba amu fa sib nañu nga song rek daal di fay julli te boo ko defee itam ñu sopp nga baamu ca waxtu wa bu wóor la ne daal barab booba am na sobe ak nga jort ko jort daa dëgër moo tax moog wóolu la yemale soo xasee jort mbaa nga wóolu ne foofa soobee nga fa rek dana araam nga songu julli fa te da ngay baamu faaw faaw ay gàtt wala ay nag fa ñuy góor ba seen gétt sax fa ñuy fanaan mënees na faa julli ndax xar ak bëy ak nag loo ci xam ne du lekk sobe saw maag xaytee lépp laab na li tax nag waxaali wuñu gëléem mooy lee mu ca teg gëléem ñoo baaxoo woon naan yaar yoon naan bu njëkk ba tudd geg naan ñaareel ba tudd sunguliku buñ naanee nag naan bu njëkk ba fa ñu yës ba noppi nag door a delluwaat naani naan ñaareel ga lañu tuddee yëskaayu gëléem moom sib nañ ku fa julli doonte sax xam nga ne moom daray sobe nekku fa mbaa nga lal ca lu laab itam te tee rek ñu sib nga julli fa ndax dañu ko aaya te xamuñu lu tax ñu aaya nu ko dañ lay digal itam nga baam ci waxtu ak lu mën ne yësukaayu gëléem daal moom sib nañ ku fa julli ku fa julli itam ñu digal la nga baamu ci waxtu wa doonte sax wóor na la ne daray sobe nekku fa mbaa sax nga lal ca ab der mbaa sajaada bu laa bi tuteer ñu digal la baamu dafa tudd église rek waaye jaamukaayu mboolem yéefar yi moo ko tax di wax bu doon jaamukaayu yahóot mbaa jaamukaayu xërëm mboolem xeeti jaamukaay yooyu rek moo xam ña ko fa def ñu nga fay ñëw ba tey di fa jaamu wala déet sib nañ nga dem di fa julli lu may na ngànta tax nga dugg fa su fekkee ne dafa sedd lool mbaa mu tàng lool mbaa muy taw nga dugg fa di seelu taw ba mbaa tàngaay ba mbaa sedd ba mbaa am lay dàq niki ab noon mbaa rabuy fàdd taw tax nga daw dugg fa kon sib amatu ca doonte sax ña fa def jaamukaay bi ñu ngay ñëw di fa jaamu it waaye ngànt looloo ko waral si bu ñu kon nga dugg fa boo fa duggee julli fa nag ñu wax la àtte bi saa yoo duggee ci jaamukaayu yéefar julli fa rek am na ñetti sart yoo xam bu ca dajee ñu diggal la nga baamu ca waxtu wa benn ba mooy duggam fa dugg sa coobare la du ragal lay dàq du ab taw mbaa dara ñaareel ba fekk foofa ña nga fay jaamu si ba tey ñetteel ba nag mooy nga jullee fa ca foo xam ne dañ doon sikki sàkk ba xam laab naam laabut bu ci yettee tasee ñu digal la nga baamu ci waxtu wa dafa tolloon ci di wax sarti julli yi te laab ci hadas ak ci xabas bokk ca sart ya laab ci xabas mooy bañ a julliwaale sobe te mën a tàggoog moom ndegam nag mbori dereti mbori bokk na ci xeeti sobe yooyu mu bëgg wax nag àtte bori